conseil des ministres d'Embo, ci bi passé président Moksal a lancé appel appel bi mu lancé dafa ni sénégalais les kuréel les Moham, administration territoriale gouverneur préfet sous préfet les élus territoriaux président conseil départemental maire Moham xam association des jeunes association des femmes Moham xam les forces de défense et de sécurité Nous avons dañ de seen ci vaccination bi ak sensibilisation wax nit ñi vaccination bi amul problème bu ci am gis ngeen ñun nañu euh, président Macky Sall tey ci dina ak membre gouvernement bi gis ngeen ministre Abdoulaye Diouf sar ak yenen yenen yenen yenen ay pour bi na man préfet maire Tivaouane Peulh ñàkk ñàkku na présidente France ñàkku na chef CADL ñàkku na euh, honorable député Souleymane Ndoye démb moom ñàkku na démb ci district bi nekk Tëngéej donc pour wax nit ñi ni ñàkk bi amul benn problème nañ ñëw ñàkku particulièrement nag les cibles cibles yi mooy ñan mooy méde mooy ñi yor personnel de santé bi te médecin chef bi fii jiite leen bu district bi ñooñu dañ leen war a ñàkk ak nit ñi nga xamante ni seen at egg na juróom benn fukki at jëm kaw te ñu am yenn euh, feebar yi moo xam tension bo xam diabète wala yoyu ñooñu lañu gëna privilégier dans un premier temps ñu xam ne nag ñàkk yaa ngi ñëw parce que weer wi di ñëw di mois de mars président Macky Sall mu ngi commander wat ay yeneen vaccin yu bëree bëri ay millions ma euh, vaccin yoo xam ne war na ñëw pour que ñu mën ko tas ci askan wi wante loolu doyul nag bu ñu yaakaar ni rek euh, ñàkku naa xaaral ma dund sama masque sànni fële déedéet ñakuna mais damay continuer tak sama masque tak bu baax manam mu muur sama bakkan muur sama gemign mais également aussi geste barrière yi ñi ñi ñi jël distance au moins 1 mètre mais également di raxaso sabu ak gel wante tamit di moytu daje yi daje yi moo xam ngénte la moo xam ciet mo xam dëj mo xam lu mën ti doon dañ ko wara bàyyi euh, ci ci ci ci jamono ji ñu toll ñu ñu wàññi ko ndax loolu tamit kër docteur yi wax nañ ni bokk na ci liy tax ñu mën a xeex ak mbas te incha allah buñ jëlee yooyu mesures yëpp ñàkk yi mesure barrière yàlla mën na def fii ak diir Sénégal ak addina bi sax laa bëgg a wax tàggoo ko ak mbas mi donc ñu ngi gërëm ñi nga xamante ni lañ fi fekk mooy tout le district les autorités administratives ici représentées par le sous-préfet mais également aussi les élus territoriaux président conseil départemental teewal na fi képp kuy képp kuy président conseil départemental Souleymane Ndoye teewal na la képp kuy maire it Papis Diop Théol parce que moom dafa bokk ci bureau AMS moom it dafa bokk ci bureau bi association des maires du Sénégal moom mii dafa bokk ci bureau association des présidents de conseil départemental jeexal rek gërëm président bu Macky Sall bu baax c'est ko ndax réew loolu la soxla ci président vous président bu tu ci tout askanam Le lu nara del askanam mu man euh, euh terre ci protection li mu def ci bi reconnaître Sénégal parce que beaucoup na tay ont ci deuk Afrique yi un am vaccin commencé ko appliquer. dañ ci rek ndax Sénégal xamoon nañ ŋas xamoon nañ poliomyélite te lépp ñekk ko dindi kon bu ñu demee ba feebar boo xam ne dafa lëmbe àdduna bi suñu président de la république jël dogal mu ne dina indi fii ay vaccin yoo xam ne nit ñi dañ ci mën a mucc li ñuy def rek mooy ñekku ba pare wax nit ñi nañu dem ñekku ndax ñekkat dafa yegg Sénégal ba indépendance amee ba léegi ba ñu sonee ci feebar yi ñekk moo ñu ci jole kon nag ñu ngi woo population bi yëpp ñu ñëw ñekku te xam ne ñekk yi rek ñooy dindi feebar bi fii ci Sénégal ak ci réewu adduna bi yëpp ñu ngi leen di sant nag di sant le ministre Oumar Gueye. voilà loolu moom euh, li nga xamante ni moom mooy cible yi nga xam ne ñoom lañ njëkk a muy ñi nekk ci waa Kër ñi nga xamante ni ñooy mag ñi ak ñi nga xam ne dañoo am yenn jàngoro yu yu fës yi nga xamante ni feebar bi baaxul ci ñoom. ñooñu am nañu dose bu leen mën a couvrir te tàmbal nañ ko ci rythme boo xam ne rythme bu bu dox la macha allah euh, ñu yëg na itam vraiment nañ ko foge woon yaakaar na dana am ñoo xam ne danañ ci am xel ñaar loolu amul vraiment nit ñi bëgg nañu ñëw nit ñaa ngi ñëw pour vacciner wu ñi nga xam ne sa bokkuñ ci cible yi fi mu ne da ngay yëg ne ñoom yàkkamte nañu seen wàllu ñëw ba jël seen wàll te loolu incha allah rabbi président de la république taxaw na ci ba nga xamante ni dose bu njëkk bi ni mu ñëwee yeneen dose yi ci fan yu néew incha allah danañu ñëw ba ñëpp mën a vacciné wu ba nga xam dinañ mën a xeex xeex mbas mu baax a baax. tey bisu mbégte la ndax euh, tey la ñu commencé depuis démb ñi ngi vacciné waaye man tey mi nga xam ne man maa jiite commune bi tey la vacciné wu euh, wane exemple bi pour que sama askan gën a dal seen xel xam ne que njiit yi vacciné wu nañ wan leen nekk liñ leen di defal nii lu président Macky Sall sàkk woon pour njabootam la mu agsi Sénégal ñu wóolu ko ñu yaakaar ne que bépp doomu aadama bu nekk ci Sénégal nekk nag ci commune Tivaouane Peulh rawatina di nga ñëw nga vacciné wu vaccin bi nag disponible na boo leen demee Tivaouane Peulh am na boo leen demee ñàgg am na te am naa yaakaar ne bu ñëpp àndee vacciné wu day tax jafe-jafe yi ñu dund ci at yi passé at bi passé ak at bi dina daal di euh, wàññeeku bu fekkente ne sax euh, jógewu fi carrément di xamal nag askan bi ne du caage ne vacciné wu nga rek danga war a bàyyi sa loxo euh, ni ñu daan dundee dañ ko war a continuer mooy doomu aadama bu nekk dafa war a takk masque am doomu aadama bu nekk dafa war di raxas loo xam doomu aadama bu nekk dafa war di bi wax moromam am nu mu taxawee distance boo xamante ne si day permettre virus bi du mën a jaabante loolu bu ñu ko respecté ci vaccination bi am na yaakaar ne mbas mi dana fi jógee ñu mën a aar suñu njaboot <coughs> aar mag yi te delluwaat ci waar wi ndax Sénégal laaj na